yooyu yëpp pour mu daje faaw rek li ñuy dëgmal muy élection 17 novembre yi Sénégalais yi jox ñu majorité écrasante awma ci sikki sàkk nag may dellu di féliciter les militants et les militantes de PASTEF ndax tànn yombut mënoon nañu tànn partie bi tas mënoon nañu tànn nit ñi gedd waaye kenn yëngatuwul kenn génnul ci partie bi